samedi le 11 juillet journée Baye Samba production premier combat ba ngi noonu dox ci tiatu bo jola tiatu seras tiatu seras mo ngem mo ngem lu vert li bo jola ngem mo ngem lu jaune li daw lañ dëbbante na ñom ñaar daw lañ dëbbante na diggante jola ak seras premier combat simple la ñoom ñaar ñëpp ñoo ngay wut ngemb Joola am na benn loxo ca ngemb Caatu Seras am benn loxo ca ngemb fàq na ko Caatu Seras ma ko indi ma ngay bañ diggante Caatu Seras ak Boy Joola Caatu Seras sukk na benn bëtu wóom ba ca suuf fàq na ko Boy Joola bañ na indiwaat na ko ma ngay bañ fàqaat na ko bañ na Caatu Seras Boy Joola rakku Fall Boy Séeréer la moom Thiatou Seras fàq na ko ma bañ ma indi ma bañ sulli na ko xaw jógaat na Boy Diola Thiatou Seras fàq na ko ma ngi koy bañ ñaga ca suuf bañ na Thiatou Seras li forcé Thiatou Seras Boy Diola Caatu Seras faaxaat na ko nooju na ko bañ na jógaat nañ jógaat nañ baadu jaar ca falañte na ca ña ca saaku ya Caatu Seras boo joola bologe na loxo ba Caatu Seras du suli wax wa koy def ma ngay bañ indiwaat na ko bañ na diggante Caatu Seras diggante Caatu Seras ak Boy Séeréer Boy Joola Caatu Seras Boy Joola diggante Caatu Seras ak Boy Joola ñoom ñaar ña nga jàpp léegi diggante Caatu Seras ak Boy Joola diggante ma weñ ma ngay Joola Caatu Seras ñoom ñaar ña nga jàpp léegi ma ngi koy mboot ma na ko Caatu Seras daan na Boy Joola daan na ko dogoo mboot dogoo ba moo tege waaw waaw ndam day ndam daan na ko KO. man dee ci Sosowoo. dafa KO. man dee ci Sosowoo. dafa KO Mbaye. dee leen ci Sosowoo. Mbaye dafa KO.